boo xam ne bu am solo la ci monsieur Barthélémy Diaz ci ensemble conseil municipal bi euh, ak administration bi bés la boo xam ne dañu am xalaat euh, suñu mbokk yi suñu rakk yi suñu mag yi suñu jigéen yi nga xam ne tey ñu ngi ci ay bërëb yoo xam ne dañu leen fa tëya yoo xam ne remarqué nañu nekk la plupart du temps ñu ci bëri suñu leen génnee dañuy dellu siwaat euh, ndax suñu delleew seen kër dañu am benn rejet ci quartier bi rejet ci entreprise yi rejet seen i kër euh, amuñu liggéey amuñu xam-xam bu jëm ci lenn loo xam ne dina leen dimbali ci liggéey ak préserver seen ay dignité loolu moo tax euh, direction de l'éducation et de l'insertion euh, topp benn projet pour formation bi mën a am pour ñu tàggat leen ci ay liggéey yoo xam ne su neexee yàlla dina leen permettre ñu am ay entreprise yu ñuy taxawal yu jëm ci transformation ay produits ci yi jëm ci ay euh, marketing digital liggéey yu jamono yoo xam ne daañu mën a am loo xam ne lu mu néew néew néew lu ñu sutural seen bopp sutural ko seen ay njaboot euh, loolu moo tax tey ñu invité association yëpp yi nga xam ne jëm nañu euh, ci défendre ak ak yelef nit ñi surtout ñi nga xam ne ñu ngi ci ay lieux privatifs de liberté ñoom ñëpp jël nañ fi kàddu dégg nga leen rafetlu li nga xam ne tey ji am na fi Euh, et loolu wax nañ leen ne que ginnaaw ñu am xalaat gi daañu mettre en place benn comité de suivi pour une fois que ñu former leen ñu mën leen topp euh, ci fan lañ leen di insérer nuñ leen di insérer ak nañ leen mujj parce que suñu objectif majeur mooy ñu bañ a dellu ñu bañ a daanuwaat ci la ñu nekkoon. kon loolu moo tax monsieur le maire Barthélémy Dias bi nga xam ne euh, tenir na te dafa ne ci début wu mandat bi parce que loolu yëpp la campagne. tey àq ak euh, li nga xam ne mooy yëllam mooy lom intégral nit ki nga xam ne tey dañu koy xool ci fànn bi jëm ci éducation ci fànn bi jëm ci santé fànn bi jëm ci sport fànn yi nga xam ne yëpp su matee mooy matal nit ki tey jii ci loolu la nekk tey nit kooku ki nga xam ne tey mi ngi ci endroit privatif de liberté yi ci la lépp loo xam ne yitteel na tey doomu Ndakaaru ak fépp fu mu nekk loolu moo ko yitteel te lii ci la bokk loolu moo tax mu tenir pour lii ñu def ko moom ci boppam moo fi naroon teew waaye démb ci 5 heures du matin pratiquement le egsi si Dakar mi ngi woon ca Ndar et loolu moo tax tey mënu ci fi teew di regretter loolu loolu moo euh, déedéet parce que monsieur le Barthélémy Diaz dafa def distinction bu baax entre waxtu politique ak waxtu liggéeyal doomu Ndakaar euh, à travers administration bi euh, loolu moo tax ci fan yi ci diggu campagne bi bi taw bi méttee ba sonal askanu ndakaaru mu daal di arrêté campagne ba daal di nekkaat monsieur le maire de la ville de Dakar yëkkati tànkam yëkkati administration bi et boobu ñëpp gis nañu ne àndul sax ak politique dafa ànd ak administration bi dem sur le terrain dem ci quartier yi nga xam ne inondé na massawu leen taxawu leen wutal leen ay machine wutal leen lépp loo xam ne soxla nañu ko pour taxawu leen te dimbali leen tey jii taawu administration la loolu moo tax aussi tey amul benn folklore politique amul ci dara taxaw waa ndakaaru la ñu nekk dimbali waa ndakaaru fexe ba liggéey bi nga xam ne moom la ko waa ndakaaru dénk mu def ko ci anam bu sell anam bu rafet ngir mbégi waa ndakaaru ñetti si réew mi ak dafay action bu njëkk euh, tàmbali koo gis rek ci benn la Euh, ñi nga xam ne tey jii ñu sant leen bu baax a baax ay association yoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi taxawu euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi foofu ñoom ñoo dajaloo jox ñu premier G bi ñu defal leen formation bi issue formation bi daa ñu mettre en place benn commuté de suivi et su neexee yàlla daañu dem ci ñeneen mën leen saytu te daa ñu waxtaan aussi ak suñu yeneen naataango yi ci yeneen euh, gox yi pour ñoom aussi ñu mën na dimbali suñu am di jàmm yi suñu frères yi pour ñoom ñëpp incha allah ñu mën a réinsérer wu bañ a duggaat dans la récidive jërëjëf jëf